آتيتني يا رب من لدنك سكرا حكيما فهديت عنك باركت لي يا رب في عوفي وغيا وجدت بالمعروف ملكتني بكونك الكريم ما قاد لي تبزير والتكريم أعديتني ما القلب أنسى كل ما مدى من الدوء موت السلما كافأني من مالوك من عاد بما لخي سابق jërëjëf yéen ñuy topp ci site internet bi di 24 actu ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal ci topp gi ñuy topp saa su nekk ñu bi ñu ko waxee woon dinañ leen ci faram-fàccee lu bëree bëri rawatina ku tedd ki Serigne Touba Khadimou di màggal gi nga xamante moom la ñu dëdmal di 18 safar di bis bi nga xamante moom la ku tedd ki Serigne Touba xaadimu rasul waxoon ne xarajtu yow ma sabti saamina asar li xidmatil muxtaari fii sahri safar tey nag bu ngeen ñu fii ci ndaam daaru alimul xabir ku ndaam tudd sëriñ ndaam abdourahman loo ku tudd sëriñ ci njabootu sell bi ndaam bu ngeen xam ndaam ci ban année la ko sëñ bi rasul sanci ak kañ la jox ki nga xam ne mooy sëriñ ndaam abdourahman loo ak njabootu sëriñ tuuba yi nga xam ne ñu ngi fii ci ndaam alimul xabir Xabir ak yu bëri yoo xamante ni mën nañ ne umpoon na leen fii ci ndaam euh, daaru alimul xabir euh, da ngeen ñuy topp euh, ci kanam tuuti incha allahu rabbi dinañ ko yaatal dinañ ko gën a faram-fàccee ànd ci ak Serigne Fallou Lo moom Serigne Mahmadan moom Serigne Dame Abdourahmane Lo Diouf dañuy topp ñu daal di dugg ci biir leeral lu bëri bëri li nga xamante ni askan bi ñu koy xaar. ودري بخير رد لنشام أسأله كون ذي القديلة خارقة لعادة مفيدة يا يا خير مسلم topp ci site internet bi di 24 actu ñi ngi leen di bu baax di leen ziar di leen jaajëfal ci bàyyi xel ngeen ñu bàyyi xel saa su nekk tey nag comme ni leen ko waxee woon rek ñu ngi ci seen jotaay bi ñu dippee yoonu màggal gi yoonu màggal gi nag dina nekk jotaay bu yaatu incha allahu rabbi dinañ tànn yenn ci borom xam-xam yi ñu xamal lañu kan mooy Serigne Touba Xaadimu Rasul waaye itam dinañ seet dëkk yi nga xam ne sëñ bi sant sancoon na ko wala sancul woon na ko ñu def ay gëstu yu yaatoo yaatoo yaatu tey nag comme ni leen ko waxee woon sànq rek ci commencement bi ñu ngi fi ci ndaam daaru alimul xabir heure bu ñu tuddee ndaam nag xel yëpp dina dem ci ku mag borom xam-xam bu màgg ba borom xam-xam bu sell ba di sëriñ Dame Abdourahmane loo nga xam ne jàngal nañu bëree bëri ci njabootu ku tedd ki sëriñ Touba Xaadimu Rasuul jotaay bi nag duñu ci yoon ki ngeen feggol ci jotaay bi di sëriñ Fallou Lo moom sëriñ Mouhamadan moom sëriñ Dame Abdourahmane Lo laataa ñuy dugg ci jotaay bi ñu bàyyi sëriñ Fallou mu nuyoo ak ñi nga xam ne ñoo koy topp ci internet bii di 24 actu sëriñ Fallou maa ngi lay nuyu auzu billahi min Eh, alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu eh, soxna as ñu ngi lay nuyu eh, di nuyu waa bi nga xam ne mooy 24actu képp koo xam ne itam mi ngi koy mi ngi koy seetaan di leen nuyoo fii ci barab bi nga xam ne mooy daarul alimin xabir li dëkk Serigne Touba boo xam ne moo ko sanc daloon fi bi Serigne Ndam kon ñu ngi leen fi nuyu eh, di leen dalal ci eh, di leen ñaanal ci njëlbeen gi te ñaan yàlla jotaay bi lépp nekk aw yow eh, ndax julluwaay bi rek mooy liggéey sëriñ bi te kon loolu mooy nuyoo bi ñu ngi nuyoo ñëpp di leen siyaar bu baax di leen ñaanal ak ñi nga àndal ñëpp muy ne ci caméra bi caméra bi yëpp ñu leen di nuyu baax a baax. sëriñ Fallou ci nuyoo bu am solo boobee euh, laataa ñuy doox jotaay bi euh, sëriñ fàllu euh, tey bu ñu bëggoon a xam ndaam Daaru Alimul Xabir kañ la ko ku tedd ki sëriñ Touba Xadimu Rasul sanc ndam ñu ngi waxee léegi sëriñ Touba moo ko sanc ci li nga xam ne moo gën a siiw nag mi ngi ñu ngi ko sanc ci atum 1892 loolu nag fi ko sukkandikoo ci sëriñ Moustapha Abdourahmane wax na ne bi nga xam ne sëriñ Touba wàcce na sëriñ Ndaam ak ñi mu àndaloon ndax xam ngeen ne bi sëriñ Touba bi mu sañc Touba am na ñeenti barab yu mu sañcoon ñu wër Touba muy penku ak soowu ak gànnaar benn bi muy diggante Serigne eh, Cheikh Maam Cheikh Ibrahima Fall Serigne Massamba Diop Sam ak Cheikh Ibrahima Sara Ndiaye ak Serigne Ndaam Abdourahmane bi sëñ Baara ganee àdduna la leen jox ndigal yeewi leen waaw sëñ Moustapha dana wax na ne nag xam nga sëñ ndaam comme bi ko sëñ bi yeewee di mu toon la taxoon di mu toon wax na ko sëñ bi ndax dafa jaayante àdduna alaaxira moo tax delluwutoon ci ay ci ci mbokkam ci askan ndam nga mu ko woon nag te te demut sëñ Moustapha wax na ne bañ joxee ba bañ joxee sëñ Baara maanaam ba bis ba deesee bi suñ baara gën a àdduna ci la nii suñ firim yeewi ba bis ba di delsee bañ jox suñ baar aw tur ba ca ngoon nee na la ànd ak sëriñ la sëriñ mag bi ànd ak sëriñ ndaam ñëw ñu sañ ci ndaam sëriñ baara nag bu ma xoolee mi ngi gën a àdduna 29 décembre 1891 kon kon 29 décembre 1891 su deesee 92 lay doon waaw kon day mel ne ndaam buñ sukk buñ sukkandikoo ci loolu ñu ngi ko sañ ci njëlbeenu 1892 loolu daal mooy li nga xam ne moo li gën a wér ci ci ci ci li nga xam ne mën nga sukkandiku te mën nga sukkandikoo ci waxi Sëñ Moussa loolu jooju moom suñ doom si ndaw daxa nga xam mag mag la loolu mu wax ma nga xam ne kon mooy tolloog 1892 ci njëlbeen nga nga xam ne da naan diggante 91 ak 92 la la lañ sanc dëkk bi sëriñ bee ko sanc bi nga ko sancee itam dellu fi sëriñ Ndaam Abdourahmane li tax mu dal ko fi tam mooy mu jàng ak jàngale jàngale moom nag sëriñ Ndaam da koo njëkkee ci daari si mu asaka xëy ci kanam ci leeral kon Serigne bi dal ko fi ginnaaw bi mu ko wàccee ci tarbiya ba noppi soppil ko liggéey soppil ko aw yoonu tarbiya masal la wala beneen beneen yoon muy jàng alxuraan ak jàngale ak yare muy jàng ak yare kon sëriñ bi da ko fi indi muy jàngale waaye mu yare nga ne kon sëriñ Ndaam yëngatuwoon ci jàngale kese waaye dajee boole yare sëriñ Moussa moo tax gis nga bi bi nga xam ne sëriñ Ndaam wàcc na ba mu koy martial bokk bokk na ca nee nee na kadaa xam kam daa xam loo bu ñëpp demee fu ngeen deeti xam loo te yeenu so daana kon ab xamlekat la woon kadaa yarak kamuda yarloo bu ñëpp demee fu ngeen deeti yarloo te yéen yéen sodana wala euh, wala ci ni ko bédi indi xëy ni mu ko indi mën naa bañ a jube noonu waaye li kam daa yarloo kan moo ko kon dara boole yar da daan yar ak yar mooy sëñ Mustafaa Gey yarawaay la nettali na moom bi bi ñu bindee ba indi ko ci sëriñ moo ay magam Serigne Touba da leen wax ne dem leen ca seen bàyyi Abdourahman mu yar leen ba ngeen yaru mu ñëw ma ma fay seen aju kon loolu Serigne Touba ndeke de nit daan ñëw ci moom mokk alxuraan ba noppi mu yewale ci moom ngir ngir ngir mu mottali sa yar kon ab ab ab ab yarekat la woon kon dëkk bi loolu moo sa sabab tur tur bi rek tegtal la ci daarul alim alxabir ñaari tur yi al alim xam la tur suñ borom la alxabir itam ku ne xam ne tur wu ci tegtal xam-xam la kon loolu tegtale ne sabab bi taxoon e, sëriñ bi sañ ci dëkk bi sëriñ daam nefi fi def fi itam jëpp nag muy jàng ko jàngale daanaka dawul dem fenn néewoon nag mu daan tukki wala ñaare wax su ma saana dem ci sëriñ bi ñaare sëriñ bee ko woo nekk njaareem kon loolu mooy wane ne yitte ji mu ko joxoon boole ko lépp nag ci daw ko yàqal dara lépp lépp lu mu war def waaw moo tax nag yàlla dimbali ko ci mu am ci résultat bu mag a mag a mag ci ci ci ci njabootu njabootu sëriñ bi xam ni Cheikh Mouhamadou Fadal Cheikh ak ñu bari ci njabootu sëriñ Touba yi moo leen jàngal loolu li mooy eh, sëñ Moussa wax na ne moo tariloo Cheikh Moustapha tariloo Alhaaji Fallu moo xam moo di Furqaana kon moo leen jàngal kon loolu sëñ Fallu itam boo demee ci an Cheikh Abdoulaye Al ba muy am na benn xasida gum tudd Nuzhatun Nadim ba muy wax jaar jaar suñ Mouhamadou Fadal wax na ne qad axasal qur'ana fi samanin an il imami abidi rahmaani muqri xutrihi bila mudaafiin ala tariqati l imaami naafiin suñ Fàllu ba muy wax suñ Fàllu nee na mi ngi jëlee alquran ci imam bu mag ba Abdourahman mi nga xam ne moo nekkoon jàngale ko ab goxam muqri xutrihi te moo jàngale ci riwaayatu Wars nga xam ne kon suñu naam ci riwaayat war la jàngale loolu loolu firndeel na kon loolu tegtal la ci ne ñooñ tudd ñëpp ci moom lañ jaar ba ci Seex Mamadu Mutara nga xam ne njëkkoon na jaar feneen waaye fii la fii la fii la fii la mujj mokkale Alxuraan ak so soxna yu tedd yi soxna May soxna Moom yi soxna Musli soxna Jóob soxna Xari ñun ñëpp ay ay njabootu Sëriñ Tuubaa la yoo xam ne ni fii lañ jànge Alxuraan ak itam soxna yu waa bartaax yi nga xam ne ku mel ne kii soxna soxna Fat Tuuti Jóob nga xam ne mooy wajur Cheikh Mamadou Moutala moom itam ci moom la jàngi alxuraan ba bind fi juróomi kaamil sëñ Cheikh Cheikh Mamadou Lamine Jóob wax na ko xat katabat bi yadiha masaahifa tuaddu xamsatan turaka arifa soxna Fat Tuuti Jóob mu bind na juróomi kaamil ci loxoom mooy wajur Cheikh Mamadou Moutala ak yeneen ci soxna yi yoo xam ne daal mën nañu wax ne fii li ñi lañ jàngi alxuraan mu ne fii moom fi ndam di jàngale boole ko yar ak ak di yaay kon waaw dëkk bi daal loolu moo taxoon sëñ bi sanc ko ci at moom la itam mooy li gën a siiw ci lañu ci li ñu mën a wax ne ci la ko ci lañ ci lañ ci lañ lañ ko sanc euh, ci ko sanc macha allah comme sëñ Fallou leeral yu am solo yooyu nga ci indi sëñ Fallou ndax mën nañ xam jamono bi nga xam ne ku tedd gi Sëriñ Touba Xaadimu Rasuul mi ngi doon sanc dëkk bu sell bi di Ndaam Daaru Alimul Xabiir euh, jamono boobu ndax mën nañ xam sëñ Ndaam Abdourahmane Lo ci ay atam ci naka la war a toll xam naa bu dee foofu moom dama mën a wax bi dëpp ci nangami at la toll ndax sëñ ndaam xam naa ci li gën a siiw moom sëriñ bi ñu rawante ci bëriwul eh, ndax sëñ ndaam feeñ jamono cinquante 1854 ci li gën a siiw booy xool mooy nekk 1300 eh, wala 271 ci ci gàddaay gi loolu nag donte am na ay ay ndax sëriñ ndaam ci ñenn ñi dañuy dañ koy jox juróom-ñetti fukki at ak juróom ak benn am ñu koy jox juróom-ñeent fukki at loolu nag lu ci nekk matalan boo demee ci Sëriñ Musaa am na foo ne lakkum mi ne diin bi wax suñ Tuubaa ndax Sëriñ Tuubaa dane Sëriñ Tuubaa ñëw duniyaa atum saraañ waaw suñ tubaa Tuubaa mu tax waaye li ñu àppoon dundam mu ne lakkum mi ne diin lañu àppoon dundam fi noonu ba Bamba farlu ko jébbal Abdourahmane kon demee lakkum boo xoolee juróom ñeen maanaam juróom ñeen fukk la mhm. mu far ko jébbal sëñ Daam Abdourahmane mhm. kon loolu tegtal la ci mhm. waaye am na feneen fu wax ci biir matam ne li mu juróom ñetti fukki xat yu mat ba defal ak juróomi weer yu ngi waxee noonu la fi am kon ba day di nga tegtal ne kon loolu day manqué bi boo demee ci e, sëñ e, Cheikh Fadi Kandi Bousso bi muy taarixal wafaat sëñ Maam Thierno ak sëñ Daam moom mi ngi jox sëñ daam juróom-ñett fukki ak ak ak ak juróom-benn kon ay wute am na fi waaye bu dee ci sukkandiku daal ñu ne ci li nga xam ne moom lañu gën a not not siiwal mooy 1854 1854 nag ak bi bi sëñ bi sànc boo xoolee kon ki ki gaanee àdduna 1854 ba 1892 da ngay daal xam rek ñaata ñaata lañ ci lay wala toll ci ci ci ci ci xayma nii waaw nga xam kon boobu daal. daanaka ndaw la waaw ndax ku teel a ànd sëriñ bi la waaw kon loolu nga xam ne 1854 la gën a àdduna ci li gën a siiw ñu sañ ci dëkk a siiw 1892 waaw kon booba yaakaar naa 80 da ngay xool kii bi tax du mënoo mën a di ko xayma fii loolu mooy moo nekkoon ay ay atam daal kon booba ndaw la woon ndax sëñ bi booba da nga xam ne boobu ñu bëri ci jamono yooyu ay ay seen at taxu ko woon a demee demee noonu waaye farlu ak bëgg lu baax Euh, ak farlu ci baax rek moo moo tax boobu ñu mën a am li ñu am ci ci ci maanaam ci ci lu baax. Mm-hmm. waaw kon daal xëy na bu dee ci wàll woo la la mooy li ma ci wax bi dab daal du ma wax ne at nangam at nangam at la amoon mm-hmm. waaye nag da nga xam ne dëkk at sangam lañ ko lañ ko sancoon booba itam mi ngi juddu at sangam. Mm-hmm. li gën ci li gën a li gën a siiw ci ci nga xam ne mooy mooy mooy nett lii. sëñ Fallou ndax mën nañ xam sëñ bi euh, kañ la rafaatale euh, ndaam euh, Daaru Alimul Xabir sëñ ndaam Abdourahmane Lo waaw loolu bu ñu suggandikoo ci sëñ Moussa Ka mi ngi wax ci marsiyaam bi muy matériel sëñ ndaam naan bi sëriñ bi jógee Jolof di yem njaayam la la la ko rafa la ko la ko kër gàngoo maanaam la kër yi kon nag te mën nañoo sukkandiku ci loolu ne boobu la ko jox bi bi bi bi fi jaayee dem jaareem boo sukkandikoo ci ci suñu musaaga da ngay mën a wax li nga xam ne ci heure boobu la ko jox la woon ndax booba la fi jaar kër gàngoog kon day mel ne booba la ko booba ko jox kon xëy na mën naa jóomul nga am ci beneen kii waaye loolu su sukkandikoo sukkandikoo ci suñu musaaga rek da mën a jàpp ne muy dem jur yàlla boobu ba fi jaar la la ko jox kër gi ndax kër kër kër kër sëñ Tuubaa la woon waaw mu dëkkal ci njabootam ba ni am na solo sëñ Fallou mu mel ni ndaam boo ko tuddee xel yëpp day dem ci am ñu naan soxnay barsàq yi foofu lañ nekkoon ndax loolu mën nga cee indi ak leeral ak Cheikh Abdou Khadir mi nga xam ne fii la gënee àdduna. soxnay barsàq yi waa kër ga sax nañ fa moom kem nit di xat nit muy ñaar fukk nit mooy ñaar fukki at yoo xam ne. waa kër ga sax nañ ko fi moom am na li koy tegtalaate beneen net lu koy gën a tegtalaate mooy eh, sëñ Moussa ko wax na ne mas naa gis muy wax ab Seex Abdu moomam naa Abdourahmaana tax may wéet fa rahmaana fi nay kër ak kër kër ji làmb ci kër ab doo ko tegg ji man jox na ko di te ci ay waxew ko fi nay kër ak kër ji làmb ci kër mm-hmm. kon loolu tegtal la ci beneen bi mooy ku ñuy wax sëñ sëñ sëñ Mor Penda Lo sëñ eh, rakki sëriñ Maxtaar Binta Lo la waaw ñu loo ko xam ne ko di borom xam ma nga mag am na benn bind yaxal bu mu lu mel noonu daal wax ne am na bi sëriñ Touba jël woo sëriñ Ndaam Abdourahmane jël suuf teg ko ca loxo ba moom suñ moom suñ mag bi mm-hmm. nee na wax sëriñ ndam ne ko suuf si de mboolem yiwu àdduna ak alaaxira mi ngi ci suuf si mboolem yiwu àdduna ak alaaxira mi ngi ci suuf mm-hmm. di wax ci nett bu daan ne daal di koy daal di koy daal di koy daal di koy sant wala déggal ko mu góorgóorlu ci soxna yi barsàq yooyu mm-hmm. nam ca daan góorgóorloo ba nga ko joxe ndigal ba tey jii may may may may may may bind lii kon loolu tegtal la ci ne soxna yi ci lañ ci lañ ci lañ ci lañ nekkoon loola yaakaar naa mi waroon nekk ci boor yi ay mille mille euh, mille neuf cent seize kon boobu day nga jàpp ne mooy bi euh, bi mooy bi nga xam ne ci la euh, sëñ bi nekk ci la sëñ bi nekk njaa njaareem waaw sëñ Mor Penda li ma wax mooy li li li la bind nga xam ci arab la ko bind date dat ba dina ñëw ci dat bi wax ne ñu ngi ko tuddee bayaanu linnaasi wa hudan wa mawxisun li muttaqin daan ne nuqi la jëli nañ suñu mor pende wax nuqi la ani cheikhil kabir alayhi ridwanul alimil xabir annahu bayana muridahu acheikha abdurahman ataala allahu baqaahu fi nga xam ne kon loolu mooy njëlbéen kii bi daane wa waada lahu min al maa laa yaalamuhu gayru alimi xabir allati la yaxfa alayhi shay'un mooy dig na ko loo xam ne yàlla rek ci ak pay yàlla moo xam wa jaale fi yadihi turaban dégg nga muy sëriñ bi jël suuf teg ko ci loxo fi ndaam wa qaala lahu kaana fiihi jamiu ma amma lahu min al xuyuri dunyawiya wal uxrawiya suuf si lépp lu ne ci àdduna alaxira mi li ma li ma tax a jóg ci wax ji mooy mooy lii wa akkada lahu ablal hadi min ahlihi wa amarahu bil ijtihaadi fihinna dégg nga mu digal ko mu feddli ko bu mu kóllëre ga waaye digal ko mu góorgóorlu ci ñoom fihinna nga demee ko nga xam ne ku jàng da nga xam ne ci jigéen li jëm bil ijtihaadi fihinna kamaa kaana yajtahidu fihinna min awwalil amri mu góorgóorlu ci ñoom nam ca daan góorgóorloo ba mu ko digalee ba tey daalika teg ne ko waadalahu ma wa jamihi sayiat yaqinan kama waada al awna fi ma yura wa fi ma fi ma la yura fi ma dahar ma la yura xëy na lu tax ñu jóg mm-hmm. nga xam ne loolu lii mi ngi nekkoon ci fukki fan ak ñaar bi ko bi ko bi da des moom suñ moo prenda nee na loolu loolu mi ngi nekkoon juma fukki fan ak juróom-ñett ci jumaada saniya 1337 yaakaar naa mooy tolloog 1916 ko sori kon nga xam ne kon lii tegtal nañ ci ne soxna yi fi nekkoon ndax li tax mu ne sëñ bi digal na ko mu góor góorgóorlu ci soxna yi nam ci doon góor góorgóorloo bu mu ko digalee ba tey loolu tegtal la ci nekkoon soxna yi fii lañ nekkoon la cay mooy am na ci ñoo xam ne fii lañ gënee àdduna bokk na ci Cheikh Mouhamadul Moutada ak Cheikh Abdoul Khadir Abdoul Khadir ak ñeneen ci njaboot sëñ bi fii lañ nekkoon ci ci sëñ bi bay dénk leen sëriñ Daam Abdourahmane kon loolu Euh, bu ñëwee ci kanam sax am na ci boo xam ne euh, fu mu sànq mi mi mi mi gën a mi gën a leeral euh, lu tax ñu xam ne yooyu yëpp maanaam suñ bi suñ daam digganteem suñ Tuubaa loolu amoon nag loolu nag li muy tekk mooy ak wóolu ndax xam nga kër sa nit ni ku nekk nit ni kul dénk këram kooku wóolu na la doy noonu la mooy dénk ko këram xool tam li nga xam ne moo gënoon kii muy alxuraan mu dénkoon ko kon loolu daal bu dee ci wàllu wabartàq ñi noonu la demee sonn. macha allah sëñ Fallou euh, ndax mën nañoo xam ndax euh, sëñ Ndaam Abdourahmane Lo ginnaaw dëkk bi nga xamante ni moom la ko sëriñ Touba Xadim Rasul euh, rafaata la muy Ndaam Daaru Alimul Xabir ndax am na yeneen dëkk yoo xam ne sëñ Ndaam Abdourahmane Lo sanc na ko. naa bu dee loolu nag bëriwut benn dëkk la laa xam ci boo xam ne dëkkam la buñ buñ sanc muy Daaru Sakko daaru la waaw mi ngi ciy gën a mbàkk ndax moom li ko sëriñ bi santee li ko sëriñ bi santoo ci la nekk dawut dem fenn dawut génn di wër xëy na di uti wala daje ay mbooloo wala yu mel noonu nga xam daal ci li ko sëriñ bi santoon ci la nekkoon ndigal li ko sëriñ bi joxoon taxoon na mu sax ci dëkk bi bu mu fee jógee ku nga xam ne sax loolu waral na bi sëriñ bi ñëwee Daaru Salaam ci ngan gu si ànd gi ngan gu mag googu ngan gu rëy googu sëriñ daam di mu la taxoon dig mu toog mooy daa waxoon ne ndigal la ko Serigne Touba joxoon ci mu toog ndigal fekkatu ko fi waaw nga xam ne wax na ne bi bi biñ koy woosi wala bi sëñ bi ñëw sëñ Basiiru la fekk muy muy muy bindal euh, am na suñ am na feneen suñ Musaa wax na ci ci njuur njaaj Basiiru bëri xam-xam rafet mbir nañ kaar xawaa sa kii baral euh, ba ba bay xaw guddi la Euh, ba wax ne keroog la laaj sëriñ daam liwaam sa daam mu ne ko laxa radiya jooju fatax lay xoos keroog daam dana teq de ni ñëpp bég leen mhm. bégal ma ci dem gi ma ñëw bégal leen mooy la xadra da ani mu ne am na ñu wax ne sax dañoo wax ne bi muy bindal ani moom nii na bay bindal banaan waaw ga ñu ñu ndigal la ñëw moom mu bàyyi ko foofu kon mooy wane ne moom loolu moo taxoon bi ko sëñ bi daali fii dawul dem fenn mhm. ci yitte jël ne ko mooy jàng ak jàngale mhm. moo taxoon daw dem di sañc yi dëkk daanaka fi la nekkoon rek ay taalibe yu ji ko yàlla boole loon mu leen yar xëy na ci foofu Daaru Sakho amoon na ay tool fii itam ci fii ci wér boori Daaru yu mel noonu waaye loolu dëkk daal daanaka liñ di sañc taxu ko wàllu ndax euh, sëñ bi day jàngal kenn ba nga xamante ni wàcc na rek mu jébbalaa ko sëriñ Touba wala da leen di jàngal bàyyi leen fii ba jotaat ndigal ci sëriñ bi mooy ñi comme ñi moom ñi nga xam ne njabootu sëñ bi lañ sëriñ bi joxoon ko képp ko ci mokkal day delloo ci sëriñ bi ndax kon ku ci ah, alxuraan loo jàngale alxuraan nag li nit ki li muy waxtu su ko mokkalee rek mooy egg na fam fa li nga xam ne moom moom moom mooy soxla ci moom su boobaa rek mu mu ñaare def ñi ëpp ci ñoom suñu masaan bind kaamil ci lenn ci njaboot yi da jël boole laa kenn yëblu ci sëñ bi tegtal bi ñu joxe mooy euh, sonn xar yi doomi sëñ Tuubaa waaw ba sonde xat yi bindee kaamil ba jël ko sëriñ Touba fajur ba la ñaan Abdourahmana waaw nga xam ne kon daan def euh, ku mu mën a bind kaamil mu boole la kenn ci taalibeem soo may wax nañu ne wala sonde xat yi kenn ci njaboot gi am na koo xam ne bi mu bindee kaamil bu ci ñoom benn taalibe bu ñaan suñu Seex Ndooy ko booleel mu yóbbu ko ci mu yóbbu ko mu yóbbu ko njaareem ànd ak moom yëti ko sëriñ bi ba muy dem ci la defal la cere ja Euh, ak kaay ba la ca xew ca naar ñu naa naa ja xewoon fa euh, mu jox leen euh, ñu lekk ci cere jëf jëfandikoo cere ji mu wan leen kaay bi ñu xamal leen ki bind kaay bi moo defee cere ji ndax xëy na bu nekkee Mauritanie gis na naar yu jigéen ñi doon bind kaay bi te xawoon ko kii taxoon bi ñu ko amee mu am ci mbégte lool kon ku ma saa bind kaay bi dalay boole kenn yéen jëbal ko seen jëbal ko seen tubaab. ndax mën nañu xam sëñ Dame Abdourahmane Lo am nañu mu seexal ak ñan la. waaw Serigne Dame xam naa loolu moom bariwut lu lu lu lu lu ngoy xam waaw daanaka daal xawma ci ñu bari ñoo xam ne da leen a def loolu état daa yoroon na ko moom yor ay donga di leen di leen xam naa kenn daal laa ci xam koo xam ne ñi nekkoon fi Mbàkke ci ci ci ci ci ci ci mbokki mbokki pal yi ko xam naa ne moom ci lu ci wàllu mel noonu waaw waaye bu bu loolu ba tey sëñ Fallou ndax sëriñ Daam Abdou Rahmane Lo jamono bi nga xamante ni sëriñ bi sëriñ Touba Xaadimu Rasul euh, rafaatale na ko fii di ndaam Daaru Alimul Xabiir ndax mën nañu xam ñenn ci mag yi murid ñi ñoo xamante ni euh, fekkoon nañ ko fi nekk fi ak moom. waaw xam nga sëriñ bi fii bi mu fii daalee sëriñ Daam fii ci latar. waaw latar waaw. mi la ngi fii ci boobu. Mm-hmm. fële sëñ Mbàkke bu fa nekkoon sëriñ Ndam ne fii euh, waaye nag ci bu dee mag ñi nga xam ne xëy na ñoo nekkoon sëriñ bi moom xumu ci koo xam ne dafa nekkoon fii ak sëriñ Ndam ci kër gi waaw ci mag ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci xëy na lu dul koo xam ne dafa jël doomam indi sëñ Ndam ku mel ne sëñ sëñ nga xam ne jëloon doomam jox sëñ Ndam muy sëñ Abdou Jang Balla Fall yi mag ñi la bokkoon kooku moom sëñ Ndam la ko joxoon euh, sëñ Ibra Sar Njaañ sëñ Baye sëñ Sar Eh, sëñ Modou Xari Ñang doom sëñ Modou Faam Ñang ñooñu ay doomi mag lañ sëñ Modou Maamun doo maam si Anta ñooñu daal seen i doom moom ñëpp daan ko seen doom ci seen daam la nekkoon di jàngal xam waaye bu dee mag ñi nag xaw ma ci koo xam ne ni moom la nekkoon sëñ daam ndax bu dee maam si Anta eh, sëñ ndaam ko jàngal waaye jàngalewu ko fii ndax bi bi bi bi sëriñ ndaam ñëwee Mbàkke joxe na loolu bu ñëwee ci yaa yaa ji si ndam danga leer mm-hmm. foofu la ko foofu la ko fa waaye waaye du firéelu fi du firéewu jàng bi waaye seeni doom seen i doon nag ñoom ñu bari ci ñoom seen i taaw moom fii leen jàngale ak ku maam si xam nga ne euh, suñu Modou Mamoun suñu Modou Roqe ba suñu Amidou ñoom ñëpp suñu daaw tax moo kon euh, bu dee ci loolu daal ñooñu laa xam ci loolu incha allah. macha allah bu ñu dugg tamit ci wàllu naafila ak sëriñ Dame Abdourahmane Lo ndax mel na ni dañ ko junj euh, ñaari rakkaan yoo xam ne moom la daan naafila ak kaamil. waaw Euh, sëriñ daam bi ko sëriñ bi wàccee wala bi ko bi leen sëriñ bi wàccee ñoom di leen waxoon ku nekk na nga wax li nga bëgg wala ngaa dem sëriñ daam nag la waxoon mooy mooy daal mën naa ko su ma ko bëggee tënk daal mooy nañ ñëpp mucc mooy murit yëpp nañ mucc ci ko sëriñ bi xam ne loolu nag dañ koy jaayante ci la ko digale muy naafila alquran ci guddi gu jot ñaari rakk loolu suñ Basiir wax na ko ci mbir baax xadim suñ Basiir wax na ne mosuma gis ku dàq taxawee alquran suñu daaw doxal eh, suñ Musaa Ka wax na ko nga xam ne diir at yu baree bari li ko sëñ bu wàccee daanaka ba ba ko sëñ bi digalee ba ni fii sëñ bu jógee guddi gu jot. daan ne naafila alxuraan ci ci ñaari ci ñaari rakk loolu eh, da xam ne kon eh, ndimbalu suñu borom la nga xam ne wax nañ ne am na bis boo xam ne dafa tàmbalee bàqara ba sóotul mulk ci benn rakk mu rukkoo mu fàtt fàtte ne su rukkoo bu la ko wax ci benn rakk bi bi mu sot bi mu eggee sot mos nag ci dafa fàtt ne moom sëggagut mu soogu sëgg eggale bi ci des muy muy ñaar rakk kon loolu euh, maanaam suñ boroom wala ak farlu ak itam euh, maanaam yitt ju kawe euh, day naafila fukki rak ak ñaar ba muy soog a jóg abu hanifa lay roy moo di noxmaana gannaaw gi gis naa mu def téeméer rak yu mat waaw a def si mu mu taxaw mu ñaar rak mu sël ma kon loolu eh, mooy tegtal ne ba tey bind na ko si bind na ko ñe ñi nañ ci borom xam-xam nekkoon léegi foofu noonu la daan naafila ñaar ñaar rakk yi alxuraan daal moom Eh, yàlla suñu boo da ko ci bu rëy rëy boole di ko di ko jàng di ko jàngal ñi mbooleem ñi ñi ñi ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon ci mag ñi képp ku mos a jógee sax mu téeméeri kaamil la ko jàngal ci mag ñi bu dee bu mara doon mu jàngal la fukki kaamil ak ñaar téeméeri kaamil la daan jàngal kemam ya fi woon gis naa mu jàngal ko làmp ak daam dum bi xabaana kuy ndaw mu jàngal la fukk ak ñaar te kenn du ko rax sarax la yoo ba nga dem jënd xat naana kon alxuraan moom loolu ci doon liggéey incha allah kii bi. macha mel ni tamit euh, am na ñenn si njabootu sëriñ tubaa gi ñoo xamante ni ñu ngi leen denc fii ci dëkk bu sell bi ci ndaam Daaru Alimul Xabiir. waaw fii itam bëri na njabootu sëriñ Touba gi koo xam ne ñu ngi leen denc fii ci ci ci barab yi euh, ab la boo xam ne lim bu bari la. Euh, nga xam ne boo demee da am na ci ñoo xam ne boo demee da gis seen i mel ni kii Cheikh Abdoul Mahiminu fi abdul quddus mahamadu abdullah fi abdullahi fi abou bakrin fi amidu mahamadu muxtaar abdul baaxi tahira soxna tahira ak soxna roqiya ak soxna amina ak soxna mashkura ak beneen abou bakrin ñii moom da nga gis seen i tur mais fu ko ñett yi am na yeneen yoo xam ne nag da gis ne tur yi dafa xaw far ndax ci liste bi am na ci Mouhamadou Mokhtar am na ci eh, Maymuna xëy na jombut yooyu faram man naa muy ñoom mhm. waaye daal bu dee fukk ñett yi moom boo ñëwee da nga boo xoolee ci ci mbind mi da nga gis seen tur mu leer na am na yeneen yoo xam ne nag xëy na leeru am na kon mm, ab lim la daal lim bu bari boo xam ne ci njaboot sëñ Tuubaa gi fii lañ tëdd ci ay tuut tànk yoo xam ne ñoo teel dala ci borom son temps la ñu ñu ñu denc leen foofu ndax mën nañu xam jamono boobu jamono bi sëñ bi nekkee la wala ginnaaw bi sëñ bi làkkoo waaw bi ma xoolee yaakaar naa yëpp soo xoolee am am sasin la am sasin euh, am sasin yaakaar naa mooy 1341 kon yaakaar naa ci yëpp jëme boobu suñu bam suñu bam waaw kon yaakaar naa jëmale ndax boo ci ëpp ci ëpp ci mooy ci ci nekk mhm. kon yaakaar naa booba ñu mel ni fii ci ndaam am na fi daqaar boo xam ne moom lañ daan wax ne fi la suñu daam daan toog waaw mooy mooy fi ñu toog nii rek mhm. ndax ñu toog nii mhm. mooy jàngukaay bi nga xam ne fi la daan doon jàngale alxuraan jàngal fi njabootu suñu tubaab gu bëree bëri nag waaw mooy fii nekk nii xam ne yàlla xëy na dafa xaw ci kii kii rek. xaw ma màggandiral. Mhm. waaye mooy mooy mooy daxal ko incha allah. allah sëñ Fallou mu mel tamit ndaam dañu gis ne bu njëkk dañ daan màggal li nga xam ne mooy génn àddu àdduna ak sëriñ Ndaam Abdourahmane Lo jamono jii ñu gis it jamono bi ko daan def mu am ak coppeeku ndax mën nañ xam lan mooy sabab bi si ñaari anam yi nga xam ne moom lañ ko daan defee. waaw loolu dañ daan màggal muy bu fi sëriñ jógee ci daan màggal ñaar fukki fan juróom-ñett lañ daan màggal ci ci barab la waaye ji jamono yi xalifaam yi wax suñu Ousseynou Lo ci demee ci suñu Saliou ci la ko suñu Saliou soppeelee loolu ndax suñu ku daal nag bis bii bi fi sëñ Touba jaaroon ba saxal ne jëlee na ci ñu ñu ko doy suñu xëyri jaxate ak suñu baaxeet buso ak ci ñu ne ko xamaa ko ne ko daal bis boobu fukk juróom la fukki fan juróom ci weeru muharram suñu xëri jaxate dégg naa ci waxtaan boo xam ne bi bi muy nettali Sëriñ Tuubaa bi jóge Jolof ne Sëriñ Tuubaa mi ngi jógee Jolof fukki fan ak ñeent gaaw ci barab ci ci la wax muharram barab muy tamxarit ah ci ak juróom ci muharram waaw waaw barab bi mooy lañ daan màggal waaw ci fukki fan ñeent yooyu la la la la jógee eh, ceen Jolof jaar fi jaar fu ba ak si ak si fii ci fukki fan juróom yi mu fanaan fi bi mu fanaanee ci la dem Jurbel loolu nag moom lañuy ñuy màggal moo moo jàll ajum ajuma ji jàll xëy na tolluwaay jamono tax na daanaka def ngoon nen nañ ko defee mhm. waaye loolu moo waral ñu bàyyi màggal gee ci ndigalu Sëriñ Saliou ñoo di ko màggal bis bii fi Sëriñ Touba ñëwee wax ci ndigalu Sëriñ Saliou macha allah Sëriñ Fallou ndax mën nañ xam sabab bi tax Sëriñ Touba Xadimu Rasul jaar gi mu jaar fii ci ndaam Daaru Alimul Xabiir ndax ñu bëri ne nañ ndaam taxu ko woon a jukk jamono boobu waaw sëñ bi li ma di sëñ xëy jaar li wax mooy bu ñëwee ba tolloog ba ba romb tuuti xayra ba xaw a jege tuuti xayra di diggante foofu lu ko am na gën guy gu wax foofu nee ci la wax ne suñu boroom nee na waxuma la Touba waaye garabi Touba sax buy sama bët tegu daane suñu bàkki sax kon sa kër lay fanaan lay dal mais bi ñu doxee tuuti mooy suñu bàkki buusa saa boroom kat nee na bu ma dal fenn fu dul kër kon ci diggalu boroomam ci la ñëwee ci ci barab bi daal di wax suñu bàkki buusa ne ko yëbbul jëlal bagage yi nga yëbbu ko nga nga nga yëbbu nga yëbbu nga yëbbu gewe suñu xëy bi sax ngi wax ne suñu bàkki buusa daana wax ne sëñ bi boo gisee mu ne ma yëbul bagage yi daal jàppoon ne su loolu xëy dama naqe ndax xëy ngir dal gi ma gi ma dër waaye moom ndekete lu lu neex yàlla rek maam daal lépp lu mu def neex na ko la la wax daal ñoom di san ni ñu meñ ci sëñ bi rek ci la soo ñu ñëwee daal daal dal fii waaw ci bu ñu dalee fii eh, wax nañ ne sëñ xëy yi jaxte bu ma koy nettali nee na keroog guddi kooku maa ngi ko nettali léegi këll bi sëriñ bi doon jëfandikoo ñam ba ba mu noppee noonu la ko sëñ bi ŋaawee jox si ndam Abdourahmane xëy na loolu la ca ci topp yëpp xëy na tax ñu jóg kon loolu ci ne sëñ bi fii la fii fii lañ fii fii fii fii la dal waaw wax suñu xarit wax na ci ne am na boo xam ne bu ñu wax Maajoor Sogg bi mu bëggee dafa bëggoona a yi suñ tubaa Tuubaa ceen Jolof yëg ne sëñ Tuubaa mi ngi fi mu jaar fi wax ne ne suñu xarit ñu ñëwee sax indi fi wax ne ne yor na ñetti sa fi gileem bi ceeb ci nekk bi café bi ataaya ki kii suuk warga suukar te kooku Madior Sow mu Sëñ Tuubaa da ko mujj jébal si si ndaam tafal ci ci ci biir ci bis boobu kon moo waral ñuy màggal ñuy bi waaw ñuy bi macha allah mu mel ni am na tamit ñu bari ñuy wax naan del bi Sëriñ Tuubaa jullee woon ci géej gi dal bi mi ngi loolu itam ci suñu so Abdourahmane wax na ne dara boobu Sëriñ Tuubaa bi ñëwee mhm. si ndaam la jox wax na ne itam dara boobu mi ngi mujj ci loxo yi soxna Muslim Mbàkke soxna muslim moom Serigne ko yoroon muy waajur Serigne Moustapha Abdourahmane Lo moom euh, moo ko saxal Serigne Moustapha wax ko wax ne der mi ngi mujj xëy na ba tey mi ngi ci njaboot Serigne Moustapha Abdourahmane allah xam naa sëñ Fallou ki ngir jeexal rek ci génn àdduna ak sëñ Daam Abdourahmane Lo waaw sëñ Daam Abdourahmane kon ni ma waxee rek lu fi nekk di jaamu yàlla di liggéey ba ci mi 1943 1943 ci la génn àdduna nga xam ne moom maam Cerno borom Daaru Muxti ñoo bokk benn seen bu ñu génn waaw si Abdourahman ak maam Cerno ñoo demandoo sëriñ Maamar Absa lañ àndal ci Midaana waaw kon ñoo yaakaar naa borom Daaru Muxti dafay jógee alxamis ajjuma samedi dimanche altine talaata si ndam jóge fi ñoom ñaar ak ak suñu ab bu njaareem ñoom ñett ñoo demandoo daanaka waaw kon 43 daan la fi ndaaw doon jógee jërëjëf euh, sëñ Fallou ñu ngi koy euh, sant bu baax euh, di ko gërëm sëriñ Fallou Lo moom sëriñ Mahmoudane moom sëriñ Dame Abdourahmane Lo moom lañ leen àndaloon tey ci jotaay bi fii ci Ndaam Daaru Alimul Xabir ci yaakaar naa lu bëree bëri yaatal nañ ko ci dund ko sëriñ Dame Abdourahmane Lo waaye tamit yaatal lu bëree bëri ci anam bi nga xam ne ci lañu sosee ci la sëriñ Touba Xaadimu Rasul sancee dëkk bu sell bi di Ndaam Daaru Alimul Xabir ak anam bi nga xam ne moom la ko joxee sëriñ Dame Abdourahmane Lo di borom xam-xam bu mag ba nga xamante ni mën nañ ne jàngal nañu bëree bëri ci njabootu ku ca dëkk sëriñ Touba Xaadimu Rasul Euh, kon ñi nga xamante ni xamuñu woon lu bëree bari ci ndaam daaru alimul xabir ñu bëri tey mën naa ne euh, Serigne Fallou euh, leeral na ko fii ci ndaam daaru alimul xabir ki ngeen jàkkaarloo nag mooy Serigne Fallou Lo moom Serigne Mahmadan moom Serigne Dame Abdourahmane Lo ñu ngi leen di jaajëfal ci topp gi ngeen ñuy topp di ko sant di ko gërëm waaye tamit di leen jox dig daje wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu